di leen wax na rek liggéey gii ngeen liggéey du bokk ci rapport yi nga xamante ne dañ koy joxe ba pare dugal ko ci tiroir yi ma bëggoon rek fàttali Sénégalais yi man Bassirou Diomaye Faye président de la République du Sénégal xam naa fan laa jaar ba toog fii du ci pexe du ci amul benn pexe boo xamante ne ut naa ko pour toog fii donc du ma ut pexe pour des parce que pexe desloowul ful nit pexe taxul toog fii lenn rek laa amee Sénégalais yi ci temps bi nga xamante ne moom la ma yàlla natal ci fii ma toog mooy naka laay def ba lépp li nga xamante ne mën nañ ko soppi bu ma fi doo jege ñu def ci jéego yoo xamante ne ku ci ñëw tamit loo ciy compte na fekk ne sori na kon lu ngeen déggoo ci rapport bii lu ngeen ci déggoo te mu nekk loo xamante ne ñi nekkoon ci euh, jam ñaajo ak ñi nekkoon ci plateforme bi ak ñi nga xamante ne ñooy kuréel yi leen yónni wala ñu teewal leen foofu juboo nañ ci loolu mën ngeen commencer dès demain di xool naka ngeen defee matérialisation réforme yooyu les seuls sur lesquels mën nañ am retard à l'allumage mooy ñi nga xamante ne dañu am incidence directe sur le plan financier pour lesquels l'assentiment du ministère des finance et du budget est important dans le cadre d'un cadrage budgétaire que lui est à mieux de valider sous la houlette du Premier ministre et sur ma validation sous validation kon mën ngeen jàpp ne liggéey gi coono gi du réer incha allahu rabbi coono gi du ci réer bu fekkee ne les arguments du plus grand nombre en plus de poids par rapport à la pertinence xam leen ne man je ne resterai plus dans le conseil supérieur de la magistrature et je n'en fais pas une obsession mais je pense que li tax magistrat yi bëgg président toog fa ça mérite d'être écouté parce que après tout c'est eux qu'on veut qu'ils soient indépendants mais même bu ñu leen dégloo te li ñu teg ci sama nopp man doyuma du tax ma toog foofu